une capitale fantôme. Mm-hmm. Je disais à mes que ça me rappelait euh, la période de, la pandémie à coronavirus. jamono ji nga xam ne couvre-feu mi nga am mi nga am Sénégal. avec dawul. daanaka compétu nit ngay gis ñuy dox. les rues étaient totalement désertes. et on avait en face. que mm-hmm. deux camps qui s'affrontaient. Mm-hmm. le camp des manifestants et le camp véritablement. de gendarmes et policiers mm-hmm. te taxul malgré la sortie même de l'armée constatée dans plusieurs quartiers de Dakar mm-hmm. empêché wul véritablement cette spirale de violence mm-hmm. lu lu ñu taal bari na lu ñu yàq bari na au premier jour la manifestation euh, gis nga ay oto yu bari yoo xam ne taal nañ leen buntu kër Matar Ba même su fekkee ni am na ñoo xam ne jàpp nañu ni am na ku nekkoon ci kër gi ku yoroon fetal génn di tiire ba loolu moo tax tamit ku ne songu et d'habitude j'entends certains journalistes dire mm. la maison de tel incendiée mm-hmm. mais kër bi bu ñu ne kër gi taal nañ ko kon kër gi dóom na mm-hmm. kër gi dóom na il faut quand même que l'on soit prudent dans oui. les mm-hmm. propos et ça ça participe à attiser la mm tension kër gi la maison de tel incendie alors qu'en réalité ñëw nañu jëm nañ ko taal mais alhamdulilah façade bi moo façade bi lañu taal. wax euh, les faits en tant que tel. mur bi lañ buntu kër gi. Mm-hmm. lañ taal. Mm-hmm. yàlla sax na fay na di yem. boo mm-hmm. ilaa yàlla bu mu amati sax. dëgg la loolu ñaan mais. quand on dit oui la maison de tel incendiée. nga toog si plateau di ko wax. mais dañuy jàpp ni si sama compréhension. su ñu nee tubaab la ñu dégg lu ci wax. dañ naan kër gi lañ taal kër gi moo moo boy kër gi. kër gi nekk lu doom la maison a été incendiée kay. jeex la wax. dëgg la. donc il faut quand même que l'on fasse très attention sur les mots sur les propos que l'on mais li ma gën a naqarlu mooy le nombre de morts surtout et c'est les bras économiques mhm. c'est de futurs ministres mhm. c'est de futurs juges mhm. c'est de futurs euh, députés c'est de futurs journalistes c'est de futurs et cetera et cetera ñoo xam ne depuis mars deux mille vingt et un ñooñu ñoo ëpp lu ñu ci faatu n'oublions pas les victimes collatérales yoo xam ne indirectement dossier Ousmane Sonko Adji Sarr. def na ko am na si njeexital. Mm. am na si njeexital bul fàtte euh, kii nañ koy waxee sàmm nu mu tudd sax euh, kii faatu woon si prison bi fii mu yàggul euh, ça va me revenir. Mm-hmm. non sans tenir compte des deux. soldat kenn ki mm-hmm. militaire gi kenn gendarme la. kenn ki Didier Badji ak. Mm-hmm. Fulbert Sambou ak yu demee noonu ba tey conséquence indirectes de ce dossier la ça veut dire que nous avons une trentaine de morts. Mm-hmm. au Sénégal depuis mars deux mille vingt et un. deux mille vingt et un deux mille vingt deux deux mille vingt trois c'est trois ans yi. Mm-hmm. on a pratiquement une trentaine de morts. on a des milliards on a eu des milliards de pertes par rapport ak li nga xam ne taal nañ ko. te dara waral lu ko lu dul. dossier bi nga xam ne. moo génn plus grave. Mm-hmm. le PIB au niveau surtout de Dakar. Mhm. parce que Dakar bu impacté les autres régions sont impactées. Mhm. en termes de produit intérieur brut. Mhm. mais am na loo xam ne dafay dañ ko si euh, dañ si ko si am comme conséquence. aujourd'hui ce que l'on perd en termes de collecte de recettes fiscales quotidiennes. bul xam ñaata la ça tourne autour de vingt milliards peut-être au plus. te lool amut si deux jours yi. donc. nga xool école yi tëj. Mm-hmm. kenn jàngiwul. Mm-hmm. l' activité économique si deux jours nekkutul nekkul woon au ralenti. Mm-hmm. cest à que elle totalement voilà dafa taxaw carrément. parce que ville boo fa demee. la fay liggéey daanaka compétu nit la. te ñoom ñëpp laata mi sax nañ leen ñibbi leen balaay affaire yi di. te ñoom sax yenn saa yi day fekk ñuy am. ñuy xaar mais ñooñu duñu mën a ñëw. boo demee université les étudiants dañoo songu. Mm-hmm. chapiteau ba ñuy jàngee. Mm-hmm. ak yenn compartiment faculté de droit criant que le droit était mort. Ah, par rapport à l'interprétation du mm-hmm. verdict rendu. tu vois la direction générale du COUD notre grand frère et correct et confrère Khalifa Diop. nous disait dans notre groupe qu'il avait perdu tous ses diplômes. pour lan parce que dañoo songu direction générale du COUD. taal ko ba mu jeex. nga dem fii nga xam ne nag mooy gën a metti si taskatu xibaar mooy CESTI. nga xool acte yu ñu fa def ak lañ fa taal. yu ñaaw. donc en réalité tu te dis oui man dinaa ko mën a interpréter quand je dis souvent nit yi dañu naan non Mbow daanaka yow da nga xaw ma lan lan. Mm-hmm. non comprend la nature psychologique de la foule. Mm-hmm. on met en avant la notion de la bestialité de la foule forcément. Mm-hmm. forcément. dëgg la tey jii nii bu ñu woon. ay nit jàkkaarloo ak ñun. coow li bari ca ku nekk ñu nekk à cent mètres cinquante mètres. ratatatatat ma jékki saa jël xeer ak sànni leen. yéen vous risquez de d'imiter le geste. ci ça la nature de de la psychologie de la foule. Mm-hmm. mais lu ñu constaté daal instant bi nii yàlla na fi parce que si ça continue cette si cette spirale de violence continue. duñu jékki xam fu ñu fu ñu yem. ñu xam fu ñu jëm. Mm-hmm. duñu xam fu ñu jëm duñu xam encore une fois yeneen conséquence yan la mën a jur yoo xam ne. Mm-hmm. mën na taal daay bi gën a yaatu bi nga xam ne daay bi tàq na ba pare parce que mm-hmm. qu'on le veuille ou non oui la Bresse coule sous sous la cendre depuis lors. te au du compte quelle la cause de tout ce que des personnes qui ont porté le combat. pour ne par force viol am na. y a des ce y certains qui qui prétendent journalistes. Mm-hmm. je me pose la question yoo xam ne en réalité. Mm-hmm. ils ont voulu se transformer en mercenaires dans ce dossier là. Mm-hmm. journaliste toog waat que ni gis na ay vidéo yoo xam ne nangam sangam. ñi ciy jël dossier bi transformé ko. en outil de propagande. pour des rentrées d'argent. loolu yëpp dafa bokk dama ne cause cause yooyu yëpp bu ñu ko dajalee dafa bokk si li nga xam ne. Mhm. dafa créer benn situation non pas d'adversité mais d'animosité politique et sociale. moo jur conséquences yi moom la ñuy dund actuellement. nous vivons. mais est tamit euh, gisoon ni euh, jeunesse bi lu ñuy li nga xam ne ñu ngi koy revendiquer euh, tamit mënul leen manifestation yi nga xam ne ñoo ngi koy def mën na nekk solution pour que ëllëg ñu mën a am seen démocratie comme lañ koy revendiquer. maa xam nga comme je di chaque président au Sénégal. Mhm. ak connu ses moments difficiles mm mais nous avons toujours su nous relever Abdou boo koy xool jamono mm-hmm. feu rouge amatul woon feu rouge amatul fi woon feu rouge amatul woon Abdou Diouf song nañu cortège am à Thiès mm-hmm. kayaase ko si la génn def déclaration bay wax cette jeunesse malsaine Sotrac bi jiitu Dakar dem dikk demoon na ba bus yi au-delà des des des des de gestion demoon na ba daanaka Sotrac amatul woon bus ndax lépp lañ doon taal. dëgg la. boo ñëwee si Abdoulaye Wade. Mhm. il a connu ces moments difficiles. Mhm. aujourd'hui c'est le président Macky Sall qui connaît des moments mhm. mais xam nga comme on dit rek xeex la ko la ko undu. na fekk suba mu bokk comme ni nga ko waxee luy tabax. démocratie bi gën a ñoŋ. dëgg la jamono ji lu ñu soxla Sénégal. mooy démocratie bu gën a jot parce que damay dëgg gars yi naan le Sénégal est une grande démocratie man leen non le Sénégal n'est une grande démocratie. le Sénégal c'est une démocratie en maturation. Hmm. dans une grande démocratie. ci yoon bi la nekk. en maturation. Hmm. mi ngi si yoon bi pour mën a doon grande démocratie. Hmm. mais eh, attends une grande démocratie on n'est pas euh, nekkatuñu si fu ñuy werante si li nga xam ne depuis quarante ans moom la ñuy werante fichier électoral. baax na baaxul organisation élection yi nu muy demee mm-hmm. kii bokk na ki warta bokk mm-hmm. nu mu war a mën a demee mais depuis trente ans ce sont les mêmes débats dëgg la dafa mel ni sur le processus sur le processus électoral mm -hmm. sur le processus démocratique en général depuis trente ans ça n'avance pas depuis Senghor même on discute on échange sur justice bi am na indépendance wala indépendance mm-hmm. am na euh, dossier politique yoo xam ne bu yeggee tribunal président moo si teg loxoom moom mooy influencé depuis boobu ba léegi ce sont les mêmes débats et de ce point de vue je pense que à ce niveau-là ça ça devrait normalement pouvoir changer pour ne pas dire évoluer. voilà euh, wax nga ko euh, moo di euh, li nga xamante ne on n'avance pas bu fekkee ni sukk sukkandiku nañu ci say ay kàddu moo di booba léegi li ñu doon waxtaanee Sénégal ba tey foofu la ñu nekkaat moo di ay mbirum élection kii dina bokk kii du bokk Pape Demba est-ce que mën nañ jàpp ne tamit suñu démocratie avancée na wala tamit maturation la nekk comme ni ko Mbow di waxee. Ah, le constat c'est simple. de faire mm-hmm. une conclusion. Mm-hmm. en tout cas nee kii qui n'avance pas recule si aujourd'hui li li ñu doon waxtaanee au temps de Diouf au de Senghor au temps de Wade moom la ñuy waxtaanee en 2023 avec mm -hmm. Macky Sall. Mm -hmm. donc sans risque de nous tromper c'est que aujourd'hui mm-hmm. cette démocratie bu ñuy wax ne di ko qualifier naan une grande démocratie mënu ko doon. Mm-hmm. je suis d'accord quand il dit. euh, c'est une démocratie en maturation c'est exactement ça on apprend à être une très bonne démocratie ou bien être à être une démocratie moderne maintenant pour être une démocratie moderne il faut que certaines questions nga dépasser ko euh, aux États-Unis doo fa mës a taxaw ñu naan euh, tey ñuy discuter euh, sur le mandat nombre de mandats et le durée parce que cette question a été réglée depuis longtemps donc c'est pas ay ay ay ay débat électoraliste mooy tax ñu ci ci taxaw euh, tey également ñi a bokk ci élection américaine. Euh, les conditions sont déjà définies, sont claires, sont fixées, connues par tous les Américains, les électeurs. Mais nous, pendant, pendant ce temps, on est au Sénégal euh, on crée des astuces judiciaires des ñu ne la des fois euh, quand un Sénégalais qui veut être candidat est condamné pour tel crime ou dil délit mhm. euh, nga dem ci article euh, code électoral plutôt moo indi la ay gàllankoor yoo xamante ni daf lay éliminer d'office mhm. te yoo xamante ni des fois même sur sur le principe mhm. constitution moo la ko consacré comme quoi euh, mm -hmm. chaque Sénégalais a le droit de participer librement à des élections nga dem ci code électoral bi ñu ne la wante bu ñu la condamné ndax lii conséquent si la condamnation est définitive mënoo nekk candidat état ça c'est des euh, c'est des yoo xamante ni mhm. boo ko bëggee teg ci démocratie dafay nekk on recule parce que euh, aux États-Unis wala en France et ça ces questions là sont sont longues largement plutôt mhm. euh, depuis longtemps dépassé nañ question yooyu mhm. mais nous on est là chaque jour kan moo war a kan moo fi war a nekk kii bu fu naree ne yéen nan lay créer gàllankoor pour ci justice wala ci code na lay fexe ba au moins euh, mu mën ko empêcher mu bokk parce que comme en 2017 mhm. euh, ci disposition condition euh, éligibilité il mhm. y avait pas quand pour être candidat il faut être obligatoirement électeur maintenant loolu quand boo waxee pour être candidat il faut être électeur mm-hmm. et que pour être électeur il faut nga inscrire sur liste électorale bi mm-hmm. et pour nga inscrire sur liste électorale bi da nga fexe ba euh, mu la bu nekk sénégalais bu ñu condamné mm-hmm. euh, condamnation boo xamante ni bu définitive la jógee ci crime wala ci yenn délit tel que li ñuy toppee woon Karim ak xalifa euh, Sall pour diir boo xamante ne cinq ans la donc a il est voulu en tout cas je dis bien il est voulu par les autorités politiques mooy ñi nga xamante quand ils sont dans l'opposition ils nous parlent de révision mm-hmm. euh, de de de la justice ou bien de l'administration judiciaire ou bien de révision ou bien de réforme plutôt du code tel ou tel mais après quand ils sont là dañuy préférer euh, dugal yeneen galgal yoo xamante ni pour gàllankoor seen euh, seen pour gàllankoor ñi nga xam ne ñoo nekk seen adversaire politique mm-hmm. et là mm-hmm. je n'y vois pas l'intérêt des Sénégalais, mais c'est plutôt l'intérêt donc groupuscule de politiques ou de politiciens euh, qui sont là et qui pensent toujours à conserver ce pouvoir. tout à fait euh, bu ñu delluwaatee euh, monsieur Mbow euh, ci li nga xam ne moo di wax nga ko léegi bëri na ay victimes bëri na ñoo xamante ne ils ont subi les conséquences maanaam ñi nga xam ne dañ see ñàkk seen bakkan ñi nga xam ne itam dañ see gaañu waaye bu fekkee ni xool nañu li nga xam ne moom lañ ko tegoon bu fekkee ay tuuma su fekkee chambre criminelle bi moom la waroon a atte ci Sénégal. sénégalais yi ci lu ñu jàpp moo di woon euh, mbirum viol menace de mort waaye tamit bokkoon na ci corruption de la jeunesse waaye ñu gis ne ñu teggi ñaari tuuma yi teg benn boobu ban jàngat nga ci am. ah la bi moom mosuñu ñu ko woon tudd ci dossier bi ah. Mm-hmm. Euh, bu ñuy def euh, réquisitoire réquisitoire final. Mm-hmm. ordonnance de renvoi. Mm-hmm. bay yegg ci li nga xamoon di procès procès bi. en tout cas xëy na juge bi ci enrôlement bi ba koy yóbbu chambre criminelle xëy na moom boole na ko ci dossier bi xëy na laa wax. ci xëy na xëy na mais. Mm-hmm. lu wóor bu wóor mooy avocat défense ak avocat partie bi yépp mm-hmm. mosuñoo wax article trois cent vingt quatre code pénal soxal corruption de la jeunesse. Mm-hmm. de ce point de vue là. lu ñu mën a cee jàpp ko mooy. viol am na wala viol amul menace de mort ak ay fetal am na wala amul. Mhm. ça le principal sujet de mhm. débat. depuis deux ans et demi au Sénégal te loolu mooy cause. Mhm. et conséquence lu ñuy dund jamono ji. tout à viol am na viol amul. ay nit nag ñeme gu ñu ñeme yàlla. dëgër fit bu ñu dëgër fit. ak la ñuy xalaat seen poosu bopp. te xalaatuñu Sénégal. la ñuy xalaat ni ñoom war nañ ko mën a préserver. Mhm. te xalaatuñu Sénégal. Mhm. lañuy ñuy a wut ci ay post mhm. te xalaatuñu Sénégal. tax na ñoom ñu bokk suñu xam ba taal de véritable pyromane. de véritable pyromane je dis te au bout du compte. c' quoi en matière pénale. c' est à dire que ñaar am. dañ lay daal di bay. wala ñu daal di yóbbu kaso. yow guñ lay yóbbu kaso nag. day tax ñu ne. que jiiñaate mhm. na andi preuve yu wóor dëgg si wàllu boppam sax moo ko jiit moo si jiitu mhm. moo ñu jàngal mu ne nit bu ñu ko tuumalee mhm. teggil tuuma teggil tuuma ba nit ki ko tuumaal andi li nga xam moo di firnde ni li mu koy tuumaal am na dëgg la mais ñun fii mm, pour des considérations purement politiciennes on a préféré essayer yore ay allumette di taal di sànni di taal di sànni boobu nag boobu lu si bari si almet yi si dafa mm-hmm. dal si ñax bu tooy. mais almet yu dal si ñax bu wow. Mm-hmm. gis nga lu mu jur Sénégal près de trente morts. Mm-hmm. en deux ans et demi. maintenant juge bi rend na verdict procureur moo ko ne si réquisitoire si lu ñu dégg si man si laay doog a dégg sax mu wax loolu si réquisitoire moo ko ne ah bu dee lii wóorutu la nag ñaan naa la nga toppee ko lee. El si wàllu boppam ak cëfër cëfëram ku ko xam. ba mu génnee dafa ne moom satisfait amul satisfaction lu tax procureur laaj ko li laaj ko li nangam nangam donc vidéo yu ñu doon wax amut photo yu ñu doon wax amut donc matérialité bi matérialité des faits foofu def naa ni teggi nañ ko ba mu set wet donc man sama wàllu bopp li ma doon xaar moo doon acquittement acquittement tout simplement mais les gens oublient que ni même Ousmane Sonko jugé nañ ko mënul def appel xam nga xam nga ni mënul def appel Ndeye Khady mën a def appel Ndeye Khady bu defee appel daan gi c'est suspensif daan gi ñu ko daan c'est suspensif. maanaam maanaam bu xasee ba def appel maanaam li ñu ko daan nii dañ koy aj ba ñu dem appel ba ñu dem cassation. Mm-hmm. yaa ngi de bu ñu demee appel. buñ mm-hmm. ko ko buñ ko buñ ko statuer ba xoolaat ko parce que en réalité xam nga boo defee appel fa ngay yëg ci kaw cour suprême walla feneen. Mm-hmm. si selon dëkk bi mhm. dootu ñu juger li nga xam ne moo di la chose en réalité en voilà dañuy c'est c'est c'est le fait justement que juge moo tax foofu lañu ñu la daan dañ koy suspendre bu dee da nga def appel Sonko mënut a def appel parce que dañ ko juger par contumace mais le fait de le juger par contumace tey jii nii dafa am beneen article. booy l' article trois cent seize du code de procédure pénale moo ko ne ñaar a am yow ak say avocat vous présentez devant la chambre criminelle dañuy rejuger dañuy rejuger dossier bi est-ce xam nga loolu. Mm-hmm. si tu te constitues prisonnier dañuy rejuger affaire bi article trois cent seize du code euh, de procédure pénale mm-hmm. moom la ñuy wax la purge de la contumace mais. xam naa ni duñu yegg si loolu duñu tàbbi si loolu. voilà si loolu mais l'un dans l'autre ci éventuelle euh, poursuite yi nga xam ne moom Sonko mën na ko def contre Adji Sarr Pape Demba ñu gis ne Ousmane Thiam wax na si waaye Ndiak Fall itam wax na si ku ci nekk nag ak li ngay wax ndax bu fekkee ni euh, bu ñu basé woo ci euh, kaddu yi nga xam ne jóge na si Ousmane maître Ousmane Thiam moom dafa ne Ousmane Sonko mënatul poursuivre ki nga xam ne moo di Adji Rabi Sarr waaye bu fekkee ni si. Ndiak Fall waxuñu poursuite waxuñu poursuite man mhm. si sama kaddu. Mhm. à poursuivre. voilà dañuy wax euh, actuellement si éventuelle poursuite yi bu ñu sukkandikoo. Euh, si mm, euh, voilà si ñaari avocat yooyu noonu kii dafa ne loolu mën ta nekk mais ka ne def nee na loolu c'est bien possible. waaw loolu xam nga c'est une question de droit mm. ah. donc question de droit du juriste ñoo koy ñoo ci ñoo ci débattre mm. en tout cas comme ni ñu ko waxee même beaucoup de questions de droit même si dañuy wax ne le droit est une science exacte. mais des fois dañuy ne di su sur euh, sur sur une même question sur la question de du de troisième mandat wala de de l'article 27 de la constitution ku nekk joxe ni nii nga koy interpréter mais dañuy wax ne en droit lorsque la loi est claire on ne l'interprète pas on l'applique donc est-ce que euh, fii c'est clair ou pa mais daf ne est-ce que mun nga toppee Adji Sarr lu ñu tuddee dénonciation calomnieuse puisque euh, puisque oui puisque li nga xamante ni la toppee woon Ousmane Sonko euh, la co chambre criminelle a a acquitté Ousmane Sonko ne ko lu ñu lay toppee on a aucune preuve à charrier contre toi ki pourrait qu'on pourrait retenir pour yow ñu culpabiliser la pour ñu condamner la ci li nga xamante ni moo nekk ci l'acte d'accusation te foofu euh, beaucoup de Sénégalais ne comprennent pas moo tax ñu ne mais pourquoi Euh, tey la chambre criminelle étant une juridiction bi nga xamante ni lu muy juger mooy lu muy atte mooy lépp luy infraction criminelle ñu dem toppee ko le on délit lu ñu tuddee ko lu ñu tuddee plutôt lu ñu tuddee on euh, une ci bokk ci li ñu tuddee euh, ci chaine de crime yi tey boo demee ba koy comme ni ko Mbow waxee c'est-à-dire que dans ce jugement y a que deux deux soit dañ naan li ngay li ñu lay toppee yaa ko def wala defoo ko soo ko defulee ñu bàyyi la nga ñibbi soo ko defee ñu yóbbu la kaso wala ñu condamné la avec sursis maintenant le le le ce qui est étonnant ici c'est que Ousmane Sonko dañ ko yóbbu renvoyé ci chambre criminelle pour un dé pour un crime pour un crime supposé crime plutôt euh, tribunal bi ne ñun sa léegi crime bi amuñ ci benn preuve wante le procureur dans bu muy def réquisitoire daf ne au cas où vous n'êtes pas convaincu que Ousmane Sonko serait coupable de délits répétés et de menaces de mort veuillez retenir li nga xamante ni moom mooy corruption de jeunesse ba pare nga daan ko une peine d'emprisonnement de cinq ans de prison ferme maintenant euh, li ñu tuddee délit de li ñu tuddee la corruption de jeunesse la corruption de jeunesse n'est pas un crime corruption de jeunesse nekkul crime maanaam bu fekkonte ne tey euh, dañoo njoxtu ne x dafa def corruption de jeunesse contre benn soxna bu benn xale bu jigéen euh, du ñu jël dossier bu yóbbu ko chambre criminelle foo koy yóbbu da yóbbu correctionnel parce que correctionnel mooy ñi nga juridiction bi censé wala moo am compétence comme on le dit juger des euh, des infractions délictuelles comme ni ñu koy waxee xam nga déjà il vous a parlé de de la cour d'appel cour d'appel par exemple dooma tooñ ma yóbbu la cour d'appel non la cour d'appel n'a pas pour compétence de ci li ñu tuddee jugement en première instance la cour d'appel c'est quoi mooy la da ngay joteeg diw ñu attelé décision génn kenn si yéen àndu si après ngeen def ngeen dem Euh, cour d'appel xool est-ce que dans cette affaire dans ce premier jugement est-ce que le droit a été dit est-ce que la bonne article ou le bon plutôt article ou bien la bonne loi a été appliquée waaw est-ce qu'il y a pas juge bi bu muy def est-ce que peine yi fourchette bi moom la appliquer est-ce que exactement amende wala dommage intérêt yi moom la teg comme ni ko loi bi santaane donc foofu dans ce sens da ngay gis ne chaque juridiction a pour compétence euh, pour juger benn affaire maintenant les peut-être que les juristes mën nañ ci weerante leneen li mooy parce que quand le, le premier avocat vous dit on peut pas poursuivre on peut poursuivre Adji pour diffamation et